Amadou Ba ancien premier ministre nekkoon itam candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakar. ci jongante présidentielle yi ñuy jugee ñibbisi Dakar de Dakar, mu demee woon Umra jaar fa dem fa nga France. d'après les dernières informations ay jege ñaaleem ñu ngi xamal que Amadou Ba dafa def bilan ci campagne électorale bi ñu jugee waaye tamit xool ëllëgëm ci langum politique bi d'après source A ñoom ñu ñuy xamal ne que nañu en contact ak benn mbokam bi nga xamante ne affirmé na que jotoon ko lu jafe woon la. laataa muy ñëw Amadou Ba soxnaam chauffeur am ak garde du corps am ñoom ñoo yëgoon bi la information. waaye démb ci aéroport international bu Blaise gis nañu mbooloo bu ko fa doon teeru ki nga xamante ne moom mooy Pape Amadou Sarr ancien DG de la DER moom mi ngi yëgal ne Amadou Ba dina daje ak taskatu xibaar yi Amadou Ba nekk ji leader de l'opposition gannaaw ba mu amee 35 pour cent ci élection présidentielle yi ñu laaj yu indi mooy lan mooy doon ëllëgu Amadou Ba ci langum politique nag day des biir APR ndax Amadou Ba day samp daara bu bees fan yi di ñëw dinañu am ay tontu ci yile laaj Amadou Ba nekk personnage boo xamante ne dina jouer un rôle crucial ci paysage politique du Sénégal T3B lii la leen indiloon ñu ngi leen di jaajëfal.